parce que dafa am lu mu dund. waaw nappakat gisoo benn nappakat mu am journée nationale pour pêche ma soog a gis. comme ni mu amee journée de l'élevage amul amul benn journée boo gis boo xam ne ni defal na nga nappakat pour nekk conseil présidentiel mosul am. maanaam conseil. présidentiel. sur la pêche sur la pêche mosul am mosul am. donc loolu muy dund yëpp nag ñàngal la ci biir sàrt bi moo tax ñu tënk ke noonu. tey bu nu amoon tey lu nu gënal dañu sax suur ci problème ministère parce que su réew mi boo gisee ni muy doxee pour développer réew mi agriculture grande taille bi suñu maan woon ba ñu bañ a juuroo benn ministre mën na ko gérer muy pêche muy mbay mi agriculture petit muy élevage yooyu yëpp benn ministre mën na ko si si direction mën na ne hmm? am organisation ak méthode ak ay direction yi da waaw régions yi sëpp acteur yi. ñu mën a développer dérouler seen liggéey. mais yow da nekk acteur di xalaat ak sa consultant di envoyé au ministère du la sax tontu gis nga ñii nga xam noo bokk nii ñii ñi nga xam noo bokk ci sart bi. Hmm. li nu dund 2019 la yàlla rek ñoo xamal seen diggante. moo tax yàlla nag buy trouver solution ñu xam ne kii jaar fii ci jaar fii man amul njariñ. waaw c'est la nu capitaliser. waa joxaat ma beneen ponk bii leer na joxaat ñu beneen ponk ci gën a fës. bokk na si. li ma doon wax ni euh, sécurité bi parce que dafa am solo dañ ko war a toppatu. sécurité sécurité sécurité pour lépp sécurité nappakat bi sécurité kër yi nga xam ne tey jii nappakat yi noo fa doon dem doon fa napp tey gaz ba feeñ fa muy ndar muy jatara di praaya nga ñëw kayaar fan doon nappee tallaar gi fa la gaz ba taaju te loolu yëpp foofu lañ daan jumtoo loolu ah. d'accord kon yéen nga ñëw. nga ñëw tëngéej. fa mais temps yi rek noo ngeen commencé am problème fa la gaz ba nekk. kon yéen nga dem ji fii problème bi yëpp da ngeen ko bëgg a jiiñ gisement yi. Oh. offshore alors que. Hmm. alors que yéen seen problème yàgg na avant ñu wax pétrole ak gaz yi seen i problème a waaw mu ñëw fi nag non non waa dafa ñëw. dafa ñëw gën nu teccal yi nappukaay yi. te ku nekk xam na ni suñ defoon étude de environnementale dama koy def waaw d'accord soo ko defee ba xam ni fii la jumtukaay bi nekk te jumtukaay bi kat am na lenn say askan loo xam ni sa loon doon dundee mhm. avant ngay teg dara mhm. da nga waroon gut faneen foo leen ko defal boo xam noo lay jox teg tegtal ci lu wër seen xam-xam mool ni jeune bii de boo ko defee nii mhm. ba def ko ba mën jëmi dellu siwaat ak jeune bii dana tax impact bi ñu waroon am ci pétrole bi wala gaz bi wàññeeku mais loolu yëpp yàlla def na amul te gis nga yow gaz bi nga xam ne amoon na problème si Gajaga je crois gis nga takk bi mu takk xam nga gazu géej ak gazu kaw joor bokkul loolu yëpp kon tey dugg si sécurité loolu yëpp dañ leen koy bàyyiloo xel ci ci sart bi. ñaata ñoo signé gum vraiment fi mu ne nekk nañu set. ñaata ñaar kan ak kan a signé gu Mamadou euh, Lamine na. signé euh, Idrissa Seck non non non. ah Diallo signé gu. non wax moo signé Jamaay. Euh, Bassirou Diomaye kan moo ko signé Déthié Fall. waaw ah, hmm. bi vraiment ñëw nañu ak seen. nañu signé vraiment. coalition Bassirou Diomaye signé na ak kan. Déthié Fall Déthié Fall signé na. Idrissa Seck waa Pire bi. waaw pur pur signé nañu waaw ah, signé na mhm. Khalifa Sall Khalifa Sall taxaw taxaw bon gaa yi ngi ci yoon mu sam Mouhamed lay chargé de communication bi vraiment gaa yi ngi ci yoon bi di ñëw ko at pour jàppatal ñu ngi leen di contacter waaw am na ñoo xam bu nu mënu ñëw fii sax pare nan pour fekk leen mais fii fii souvent wakaam ngeen di dajeeg ñoom waaw fi lañu basé c'est la maison des pêcheurs kon fi ñu toll nii vous êtes choyé am ngeen vraiment nit ñi ñooy ñëw vers vous parce que li ci gën a neex tamit ah dëgg rek mooy feeñ quoi wallaahi lazim uh-huh. xam na ni ñii xam-xam gu ne da nga koy jox borom xam na ñii li ñu tëgg jublu si pour defar parce que tey jii dañu sonn suñu njaboot dem ñoom dañ leen ko yónnee. wala ñoom dañ leen ko yónnee par électronique. ok physique nu gis ko. ok ku ñëw. nga xam ni sarte bi ñi bind militoo nañ lii. Uh-huh. parce que vraiment am am nañu organisation ak méthode. lu manti am ëllëg ñu préparé en tout cas lu si am solo dëgg. mooy nappa gi moom danañ ko téye dootuñ ko bàyyi di nangu kenn duñu dérivé di si def loo xam ne du yoon. Hmm. waaw parce que dañu war am nappa gu sax dàkk. man bi ngay wax ponk yi yi man yaakaaroon naa ponk bi njëkk. ci bateau de pêche yi lay doon. moom la. mais boobu ba léegi maa ngi lay laaj. Ah, jëlal ah, la licence de pêche. licence de pêche da mooy coow. yéen da ngeen di soxla licence pour dem Mauritanie wala licence yi ngeen di jox. étranger non non non non. dafa am ay accord bilatéral. oui yooyu accord. Sénégal Union européenne Sénégal non non non. non non non ñun ak sous-région bi noo bokk sous-région bi Mauritanie daf nuy may licence. Guinée-Bissau ah, daf nuy may licence accord bilatéral donc accord yooyu noo koy waxtaan dégguloo sànq. Mauritanie da leen di may licence. Guinée-Bissau Guinée Conakry même Sierra Leone. dañ leen di may licence donc ñun ñëpp kon nga xam ni nga xam ñun dañuy dem ñaan licence. Guinée Conakry ñun dañ koy ñaan licence. Sierra Leone Sierra Leone dañ koy ñaan licence. Bissau dañ kon napp gi te wuti leen. jàngoo conséquence bi nag ku ne gis na ko tey te consommateur bi. Mhm. ah am ñëpp si am cër. Ah, bien sûr vraiment ku nekk xam na ni productif bi mu def si doomu aadama léegi ceebu keccax kenn waru ko foog da nga gis man lekk naa ceebu keccax plusieurs fois mais boo gis sax pepp keccax ci sarte bi am na foo xam dañ fi wax ni nanu nationalité kooba bi ak yaaboy bi parce que loolu kenn waratu ko jaay maa nañ ko wutal nationalité. xam lii sénégalais kese noo ko war a. Ah, keneen doot ko nappati. keneen doot ko nappati. yabooy bi ak. dafa amul lu nuy napp. avis scientifique bi muy CROC. moo xool ba xam ni lii amatoo loo lekk. kenn ngay jaay licence. képp ku jaay licence nga tekk ci boor bi. tekk da te ministre boo laaj. ñi xam ni ñi boo laaj mun la licence fi laa ko fekk. déglu nga xam ni dañu ànd ak yow nga defal leen privilège. yow nga teg nu da kon kon nun nooy sant yàlla. lii sunu alal lañ si def. fexe leen jubóo yéen seen biir ba pare. kay doon benn non lii moom c'est sunu alal lañ si def réseau yi ma la wax yëpp dañu jël sunu alal muy industrie muy. waa mais mais ñëpp teg sunu alal déroulé sunu programme. Amadou Ba signé gul. ku ñu ñëw fekk na si fekk na si. Amadou Ba signé gul. mais am na ku ma wax ni noo si yoon wi daal. Euh, Seynabou loo xalaat ci